wax ci li nga xam ne ni nemmeeku nañ ko ci wàllug mauvaise qualité de l'air euh, ci jaww ji li ñu nemmeeku rek mooy fan yii nii bëri na ak poussière ak lëndëm lëndëm buñ ci nemmeeku loole nag muy indi ay jeexital ci suñu wàll wér-gu-yaram tax ñu daal di tey invité ki lii di docteur Jean-Marie Sagne nekk pneumologue ca Dalal Jàmm ancien interne des hôpitaux de Dakar docteur nuyu naa la. oui di fay. di la jaajëfal ci sa présence ci plateau bi pneumologue dañ koy dégg euh, tey jii nii pneumologue lan mooy lan yan domaine carrément carrément ci lay nekk pour ñi nga xam ne nii ñooy seetaan ñu gën a xam lan mooy pneumologie. waaw pneumologie benn spécialité médicale la. Mhm. c'est-à-dire médecin bu def sept ans ba def thésam def spécialisation en pneumologie pneumologie nag benn domaine boo xam ne. day faj feebar yi nga xam ne ñooy laal poumon bi ak euh, tuyau yi nga xam ne ñooy dawal air bi oxygène bi ba mu egg si poumon bi mhm. bépp feebar bu laal cër yooyu pneumologue bi moom la ñu former pour muy faj feebar yooyu feebar yooyu nag bëri na li si gën a bëri ici en Afrique wala au Sénégal mooy infection yi infection yi nag buñ ko waxee mun na nekk tuberculose tuberculose bëri na trop si Afrique ok tuberculose nag cër bu muy laal le plus souvent mooy poumon bi wala à part tuberculose am na yeneen xeetu infection aussi ñu mun a laal cër yooyu à part infection yi am na yeneen feebar comme ay allergie allergie bu ñuy gën a faj nag ñun pneumologue ni mooy allergie bi nga xam ne day dem ba laal poumon bi wala bronche yi mooy lu ñuy wax asthme asthme pneumologue bi moom lañu ñu gën a former pour muy faj nit yooyu à part asthme aussi am na ay yeneen feebar yu ñuy wax ay cancer cancer yi nga xam ne ñooy laal poumon bi wala conduit yi nga xam ne ñoom ñooy dawal air bi ba foofu mooy lu ñuy woowee cancer bronchopulmonaire cancer yooyu nag bëri na surtout ci Afrique surtout fii nii au Sénégal parce que si ñu ñu constaté yi nga xam ne dañuy tux ñu bëri mun nañu dem ba développer lu ñuy woowee cancer bronchopulmonaire ñooñu le plus souvent pneumologue bi mooy def diagnostic bi et en concert avec ñi nga xam ne ñooy faj cancer ñoom ñu booloo pour mun a jël en charge su malade yooyu à yooyu am na yeneen feebar yoo xam ne aussi mun na laal cër bi yëpp mais laalaale aussi poumon bi mooy lu ñuy wax de maladies de système maladie yooyu mun na feeñee ci poumon bi et souvent pneumologue bi mun na poser diagnostic bi mm-hmm. voilà waaw parce que pourquoi c'est important ñu leeral ko euh, mooy euh, dañuy gis ne euh, comme ñi nga xam ne nii parfois yi dañuy am parce que wax nga sànq allergie dañuy am problème mu allergie parfois duñu xam vers qui se tourner soit ORL bi wala pneumologue bi donc c'est pour ça que c'est important pour gars yi xam détail boobu. waaw allergie nag dafa mun na laal voie respiratoire supérieure c'est-à-dire mu laal bakkan bi. wala mu laal put bi bu fekkee ne foofu kese la laal ñu ñuy wax ORL yi mun nañ leen suivre ok am na yu ñu woowee aussi ay allergologue ñooñu mun nañ leen suivre mais bu demee nag ba laal poumon bi foofu la ñuy ne kii dafa am asthme kooku day fatt dana bi di siffler buy saqat souvent guddi ñoo ñooñu pneumologue yi ñoo leen di jël en charge mooy lu ñuy woowee asthme asma muy loo xam ne ni tamit euh, xëy na dinañ ci ñëw ci yeneen i jamono incha allah toog ci waxtaan ci waxtaan bu yaatu ndax doon na lu sonal torop torop nit ñi muy euh, asma wante sànq wax nañ ko ci ndorteel gi euh, ci fan yi ñu nekk nii gis nañ qualité air bi jaww ji na mu mel bëri na poussière ba tax sax gannaaw sax ba mu ci amee ñi nga xam ne ni ñoom la seen xel màcc ci wàll wile def ci ay saytu gis nañ ne li nga xamante ni bii nii mooy jaww ji ni mu mel indice bi dafa dafa yéeg torop ci li nga xam ne nii sax moom la OMS di digleel ne euh, qualité boobu bu ca tollee daanaka waroo toog sax 24 heures ci euh, exposé wu ko ñu gis ne nag fi ne fi mu toll nii ci réew mi dépassé na ko sax loolu yan jeexital la mën a am ci euh, yaram nit ki rawatina nag ci domaine bi nga nekk. loolu nag njeexital yi mu mun a joxe bari na loolu la ñuy woowee lu ñuy woowee pollution atmosphérique. c'est-à-dire air nit day nooy air bi air bi air boobu ñuy nooy foofu la ñuy jëlee lu ñuy woowee oxygène bi te oxygène bi comme carburant la moom mooy tax lépp lu ñuy lekk il faut ñu produir ay orga ay énergie pour mun a def lu ñuy def ay activités yu ñuy def énergie boobu nag pour ñu produir ko dañu soxla oxygène oxygène boobu si air bi lañ koy jële malheureusement nag air bi parfois mu am ay lu ñuy woowee ay polluants c'est-à-dire ay particules yoo xam ne desi yu bëri wala ay poussière bu bëri loolu la ñuy woowee pollution atmosphérique bu demee nag ba egg yenn niveau yi day altérer qualité de l'air bi donc lu ñuy nooy mun na indi ay problèmes yu bëri yu mu gën a sonal nag mooy xale yi wala mag yi wala ñi nga xam ne dañu am allergie ñi nga xam ne déjà dañu am allergie qualité de l'air boobu bu baaxul day réveiller seen feebar bi voilà ñooñu dañuy def souvent ay crises d'asthme ci période boobu wala seen feebar bi day gën a yëngu souvent dañuy constater sax même hôpital qualité de l'air bi bu altéré wu rek malade yooyu dañuy gën a bëri di ñëw urgence wala en pneumologie ñu leen di gis feebar bi sonal leen ñi nga xam ne aussi dañu amoon ay feebaru cardiaque wala feebaru poumon yu yàgg c'est-à-dire des maladies chroniques sur le plan respiratoire wala sur le plan cardiaque pollution boobu aussi da leen di gën a sonal donc day yëngal souvent seen feebar bi donc jeexatal yu mu indi bëri na ñooñu aussi polition atmosphérique foofu bu fekkee ne dafa yàgg ñu koy exposer de façon chronique mun na indi ay yenn feebar comme ay cancer parce que ñun dañuy gis dans la pratique on voit de plus en plus ay cancer ci poumon bi ci ñoo xam ne sax mosuñu tux mm. te yooyu dañuy njort ne pollution atmosphérique bi am na ay preuves yu wone ne c'est un facteur de risque ajouté à d'autres choses yoo xam ne mun na indi ay cancer ci ci poumon bi donc am na ay problème yu bëri yu mu am mun a entraîner ci ci santé nit mm-hmm. ñun ñi nekk dakaar kon xaw ma naka la ñuy def <laughs> ndaxte ñu bëri dañ naan fii la polition bi gën a bëree euh, sànq ñu ngi koy wax même bu dul pollution bi sax parce que boobu aussi beneen pàcc la laataan ci ñëw mais ci poussière bi ñu nemmeeku fan yii nii euh, fi mu toll nii yan jeexital lay def ak ndax fi mu toll nii yéen seen structure yi yéen a ngi recevoir ay malaat yu bëri ak yan façon jàngoro lañ lay lay yee ci effectivement poussière boobu day bari poussière boobu nag buñ koy nooy c'est vrai que cëru nit am na lu ñuy am na nu mu organiser wu ba nga xam ne poussière boobu même buñ koy nooy dafa am euh, arbu bronchique yi dafa am luy permettre poussière boobu mu koy yëgal ci kaw ñu koy saqat moo tax souvent poussière bi bu bëri da ngay gis ni ñu bëri di saqat saqat boobu baax na parce que day permettre génnee poussière boobu voilà mais poussière boobu nag bu demee ba bëri day dem ba capacité yooyu day dépassé wu donc mun na indi ay feebar ay infection parce que germe yooyu germe yu bëri ci air bi lay nekk nit ki bu ko nooyee bu bëri trop ci poumon bi défence yi du ci mun a defati dara donc yooyu mun na indi ay infection donc dañuy gis ne poussière bi bu bëree pollution bi du bëree non seulement ñi nga xam ne dañu am allergie dañuy bëri hôpital di ñëw parce que seen feebar bi de leen sonal asthme bi de leen sonal wala ñi nga xam ne dañu amoon déjà ay feebaru poumon seen feebar yi day yëngu ñooñu dañ leen di gën a recevoir ci période yooyu voilà yooyu lay gën a entraîner c'est-à-dire lu ñuy woowee exacerbation ñooñu dañuy am ay exacerbation ñëw hôpital ñu leen di donc période boobu day collaborer ak période boo xam ne asthmatique bi dañuy gën a bëri hôpital wala lu ñuy woowee ay bronchite chronique ñooñu dañuy bëri lu ñu ñëw hôpital mun na dem sax ba ñu hospitalisé la mhm. ci période boobu nga wax euh, période bi tamit nemmeeku nañ si ñi nga xam ne nii tamit ñooy am problème mu asthme daf leen di yëngal muy fraîcheur bi loolu tamit ana moo koy gën di waral ci wàll science carrément. lu koy waral mooy <coughs> ñi nga xam ne dañu am asthme seen muqueuse bi am na yenn particules yoo xam ne buñ ko nooyee rek day déclencher ay réaction mu ñu woowee inflammation inflammation boobu nag moom mooy entraîner ñoom ñuy def ay crise das c'est-à-dire euh, bronches yi day inflammé wu bronches yi bu ñu inflammé wu nag xam nga lu ñuy sécréter day bëri lu ñuy sécréter buy bëri bronches yi ñi nga xam ne ñooy conduire ngelaw bi ba mu egg ci poumon bi day fatt loolu nag bu fàttee moom mooy tax ñoom dañuy am jafe-jafe pour nooy seen dënn yi di siffler et ñooñu bu na mun bu ñu munatul nooy malgré seen garab yu ñuy jël ils sont obligés de venir à pour ñu gis leen bu ñu leen gisee ñu xool est-ce que ñii dañ leen war a téye hôpital wala dañu leen di xoolaat seen garab yu ñu jël ñu adapté ko wala ñu hospitaliser leen. ñooñu aussi dañ leen di digal souvent ay ay mesures surtout bu amee pollution bi bu fekkee ne dafa dem ba qualité de l'air bi baaxul. comme quoi ci laa doon ñëw sax ana naka ngay def ngir mën a fàggandiku. waaw dañuy faggandiku parce que Sénégal am na lu ñuy woowee centre de gestion de la qualité de l'air donc def ñuy jox ay indice ci qualité de l'air bi chaque jour avant même ñuy jour bi di egg dañu xam ne ah période du telle semaine bi di ñëw qualité de l'air bi mun na am du baax mhm. ñoo ñi nga xam ne dañu am allergie wala ay feebar yoo xam ne ay feebaru chronique la ci poumon bi mhm. dañ leen di digal ci période yooyu bu ñu munee sol masque ñu sol ko bu fekkee ne aussi mun nañu bañ a génn si c'est pas obligatoire ñu toog seen kër bañ a génn ay génn yoo xam ne ça sert di rien du tout. Mhm. ñu moytu yenn mouvement yi bu ñu munee sol mas ñu sol mas bu fekkee ne dafa am ay garab yu ñuy jël ñu respecté di jël garab yooyu wala bu fekkee ne dañu war a adapté seen traitement ci période yooyu ñu adapté ko mhm. parce que buñ ko deful rek. ngelaw boobu da leen di sonal donc dañu ñëw hôpital ndax euh, seen feebar bi mën na yënguwaat temps yooyu. Mm-hmm. Euh, kuy wax ci wàll wàllug nooy poumon di euh, xëtër n'est-ce pas mm-hmm. noonu lañ koy waxee ci wolof mm-hmm. mais gis nañ ne ay jafe-jafe bëri na si lu si mel ni maa ngi koy wax sànq yaa ngi ko doon wax sax mu bëggoon nga ñëw si mooy pollution bi. parce que en dehors poussière bi nga xam ne nii peut day jàll wala yooy noonu mais dañuy gis euh, li nga xam ne nii mooy à Dakar yaa mm-hmm. dañ naan dakaar ville bu polluée la et tout ça nga gis ne ñun ñii nii ñi si nekk yëpp euh, dañoo exposé wu te it am na si ñoo xam ne peut-être xëy na du ñu mën di nekk di sol sol masque masque tout le temps euh, pour ñooñu tey jii nii peut-être nan nga leen di mën a leneen conseiller beneen système boo xam ne mën nañ ko def waaw pollution bi yoom si ville yi la gën a bëri mhm. c'est-à-dire oto yi day bëri Dakar mhm. gaz yooyu ñuy produire souvent day altérer qualité de l'air bi loolu moom gis nañu ne même da ngay dañuy suivre ay malades yoo xam ne bu ñu demee dans les régions dans les zones yoo xam ne c'est très aéré seen asthme bi du leen sonal on les contrôle mais bu ñu xesee ñëw dakaar rek dañu ñëw chaque fois di la gis naan la docteur depuis bu ma ñëwee Dakar moom mm-hmm. sama asthme bi daf may sonal rek mm-hmm. loolu souvent qualité polition bi moo koy waral mm-hmm. polition bi nag am na loo xam ne ñun lu ñu si mun bëriwul mais état bi aussi mun na si jël ay kii moo tax en Europe nit ñi lu ñuy def souvent di wàññi yenn oto yi am na yenn oto yoo xam ne duñ ko permettre muy daw loolu moo tax parce que gaz yu ñuy produire yooyu day altérer day aggraver pollution boobu te pollution boobu baaxul bu fekkee ne dañ koy exposer gaz yooyu baaxul ñu koy dund di ko dund ay at yooyu mun na favoriser ay lu ñuy woowee ay cancer du poumon loolu moo tax souvent ñuy gis ay cancer du poumon si ñoo xam ne fii nii mosuñu tux mosuñu tux mais souvent soit dañu dëkk foo xam ne dafa am ay industrie industrie yooyu di produire ay gaz yoo xam ne baaxul ñu koy nooy dëkk ak ñoom wala ñu dëkk ci ay villes yoo xam ne pollution bi dafa bëri donc loolu état bi il faut mu jël ci ay ndogal voilà loolu ay mesures yoo xam ne mun na ko jël pour wàññi pollution bi Europe loolu la ñuy def moo tax ñuy tere yenn oto yi ñu dox moo tax ñuy dem ci ay voitures yoo xam ne c'est des voitures électriques loolu moo tax parce que nit ñi constaté nañu dans le monde il y a beaucoup de décès qui sont la polition atmosphérique. yi mhm. loolu nag il faut état bi jël si jël si ay dogal. Mhm. ci xayma tey jii nii euh, ndax luy aju ci feebaru xëtër bëri na lu muy yóbbu nit ñi euh, file ci réew mi wala doonu loo xamante ne bii lu mu faral di sonal nit ñi la ndax doon na loo xam ne nii luy faral di faat lu bëri la. ah oui bëri na trop. bëri na trop. ñun surtout lu ñu constaté mooy cancer du poumon parce que cancer du poumon dafa nekk cancer boo xam ne faj bi dafa metti mm. bu fekkee ne dafa commencé law rek faj bi c'est très difficile on n'a pas tous les moyens mm. voilà faj bi dafa bokkul ak yeneen cancer yi comme cancer du sein yi nga xam ne mu na leen faj nit ki mun na dund lu bëri mais cancer du poumon bu xesee ba law faj bi dafa dafa metti te nit ki pour mu dund yenn at yi ak cancer boobu c'est très très rare mm-hmm. donc mortalité bi surtout c'est les cancers bronchopulmonaires mais aussi infection yi surtout tuberculose tuberculose lu neex a faj la mais dañu constaté ne nit ñi dañuy toog dañuy ñëw hôpital tardivement bi nga xam ne tuberculose bi dafa évoluer ba egg foo xam ne parfois euh, mun nañu traiter tuberculose mi mais mun na am ay yeneen complications yoo xam ne ñoom ñooy rey nit ki donc hmm. cancer yi si poumon bi si xatar bi surtout cancer yi ñooy gën a yóbbu nit ñi hmm. à part cancer yi am na yenn infection sévères yi mais macha allah la plupart des infections on parvient à les traiter ñoom bu ñu ñëwee temps dañ leen di traiter ñoom ñu génn si même tuberculose yi bu ñu teelee ñëw hôpital wala ñu teel a dem poste de santé yi ñu gis leen def diagnostic bi ñooñu dañuy wër donc je profite pour dire aux gens ñi nga xam ne dañuy sakat de façon chronique ba ay loo xam ne mot na ay trois semaines bul ne ah man dama soj rek moo tax may sexat demal hôpital ñu xool la bu ñu la mënee defal rajo ñu defal la wala ñu analyser crachat yi xool est-ce que amul leneen lu nekk ci ginnaaw parce que dañuy gis ne ñu bëri dañu naan non dama sojoon mhm. fekk tuberculose moo fa nekkoon léegi balaa ñuy ñëw poumon bi day am ay kàmb am ay compliqué yooyu même buñ ko fajee ba mu wër mun na bàyyi ay lëgët ci poumon bi mm-hmm. loolu c'est c'est très important il faut nii di consulter tôt mm-hmm. voilà bu ñuy sakat l'autre chose mooy ñi mm-hmm. nga xam ne dañuy tux tux baaxul tux bu yàgg baaxul surtout si poumon bi. parce que boobu day yàq voilà baasu Aliou Keita yi. <laughs> wax ko ci kaw gaa yi dégg gaa ngi tooñ. ak ñiy toxit ñi ñi enfumer les autres. voilà loolu c'est ce qu'on appelle ah, le yow doo tox doo def dara mais ñuy tox rek yow chaque jour di tox. ngay kay nooy jour. loolu la ñuy woowee voilà loolu la ñuy woowee tabagisme passif. tuxoo mhm. mais da nga jege tout le temps koo xam ne day. day na kuy tux sax day nooy après mu génnee mais yow da ngay nooy rek. Mhm. moom mu ngi nooy di génnee mais yow da ngay nooy loolu tabagis passif bi aussi. bu yàggee ça presque les même conséquence koo xam ne day tux. voilà ñi nga xam ne dañu jege koo xam ne tout le temps day tux loolu baaxul booy tux mun nga tux mais nga bañ a jege nit ñi nga tux ba pare pare nga ñoŋal. même si tux moom baaxul képp koy def baaxul. Mhm. parce que dañuy gis ñoo xam ne bu ñu ñëwee hôpital dañuy regretter sax lu taxoon ñuy tux. Mhm. parce que da ngay dem ba da ngay nooy air bi mais poumon poumon amatul. Mhm. donc li ngay nooy yëpp oxygène du am si yaram bi doo ñooñu dañuy fat dañ dem ba dañuy dundee sax oxygène même bu ñu demee seen kër ay matériel oxygène la ñuy te loolu moom baaxul. des fois aussi maam xarit dañuy wax euh, benn contribution bu ndaw ah. xam nga des fois aussi dañuy jékki-jékki wax ne. Euh, dof yi maanaam mooy ñu nekk ci ci ci mbedd mi. Mhm. et sama mbokku tuxkat yi dañu ma baal mais boo wër ab dof dëgg demal ci ab tuxkat. <laughs> ñoom moom mënoo gën a dof ñëpp xamul tax ma wax loolu. yow da ngay dem ci benn. paquet de cigarette nga di ko jënd tubaab bu mu koy def ne at bi dangereux pour votre santé. bindal la ko ah da la koy bindal. tubaab bi ñëw tubaab bi ñëw la jaay la ko ah. dafay bu mu lay jaay bu noppi bindal ci suufu tab ci biir suufu tab. image ba mu la fay defar sax dangereux pour la santé pour votre santé. yow <laughs> aussi warul gën a par exemple yu ni mel. soo ko bëggee sax boo xalaatee prix bi. Mm-hmm. incha allah boo ko toxee tey balaa nga saa toxal semaine prochaine. mais du hmm? ah, tey gars yi toxoo. mais du tey gars yi toxoo de gars ay mesures la mm-hmm. ay mesures la c'est mm-hmm. mun na décourager ñi nga xam ne ñooy. toxkat yi. voilà soit ñu seeral taxi wala ñu kii. comme ça nit ñi mu bañ leen yombal nit ñi di tux surtout xale yi les jeunes la voilà ñu def ay politique di leen sensibilité ci école yi. teel leen woon conséquence yi nga xam ne euh, tux mun na ko indi. parce que ñooñu bu ñu commencé tux rek pour ñu arrêter day xaw a et puis danga wax jeune mu am beneen phénomène bu ñu nemmeeku ndaxte ñu ngi dugg ci tux bi mooy chicha. waaw jeunes yi bëri gis nañ léegi dañ koy utiliser les restaurants et autres et yi aussi pour am la conscience tranquille dañ naan noo chicha bi c'est pas nuisible loolu lan nga si. en plus c'est des variétés de parfums yoo xam ne. c'est ça moom moom lañ siy def. si ça aussi c'est aussi ko que le tabac mhm. parfois même plus loolu il faut jeunes yi xam ko mhm. voilà chicha day joxe ay conséquences yu énorme mhm. boo amee allergie di tux chicha sa allergie bi day gën di yokk bu fekkee ne asthme la duñ la mën a contrôler da ngay daanu souvent ay crise d'asthme bu fekkee ne li nga koy tux aussi daa bari di ko utiliser mun na dem ba jox la cancer loolu il faut ñu xam ko c'est pas parce que chicha la ko du joxe ça donne les mêmes conséquences que le tabac parfois même pire que ça. pire sax waaw. est-ce war nañu jël yamba si. ah mu day yamba day faje bi. waaw. <laughs> mais bu leen rek. waaw parce que. mais euh, dañuy poser débat bi. mais mais docteur moom mais. <coughs> mais mais nag tudd ko fi wóorul. loolu <laughs> c'est interdit pour la vente. mais day faj. d'accord non euh, ça mooy le cannabis médical. Mm. mooy cannabis cannabis médical quoi. c'est c'est c'est qu'on pose le débat également. pour en parler dans ce mais bien sûr jël si ba si plateau. loolu laa a la jël si. da ngeen a non non mais kenn ma jël si mais ce que j'ai dit je le répète encore est-ce tamit euh, <laughs> nga ne day faj sëriñ sëriñ wax bokkoo suñu débat yow fu mu nekk ni Seydina posé na sa débat ba pare dégg nga ko <laughs> dox bi la la wax waaw c'est différent le cannabis médical cannabis ay kii la ay produits yoo xam ne mun na am ay propriétés médicales. Mhm. mais nag cannabis di ko tux ñëpp xam nañ ne yamba baaxul. Mhm. boo koy tux c'est plus pire que même cigarette simple. Mhm. parce que ay toxiques lañu yoo xam ne c'est président ci cannabis bi. yooyu boo koy tux day dem di yàq sa poumon ndànk-ndànk te ça favorise souvent le le cancer ci poumon bi. mais propriété am na ay propriétés médicales. mais ñi nga xam ne dañ koy tux tout le temps loolu moom il y a pas de débat à ça donc euh, yàmba mm. baaxul day mm-hmm. ça entraîne facilement mm. ay cancer du poumon ça entraîne facilement une ak lépp lu mu mun a mm-hmm. voilà propriété yooyu moo tax ñenn yi di ko tux parce que bu ñu ko tuxee dañuy sentir na ils sont bien dans leur tête tout ça mën mm-hmm. nañu def lu nekk mais yooyu sa c'est pas bon pour le poumon et même beaucoup d'organes dans dans l'organisme baaxul Mm-hmm. mais di nga wax sànq si chicha bi dama siy ñëwaat parce que dañ ko jël def ko à la mode surtout xale yi moom. pour ñoom boo deful chicha. snap sa bopp mm-hmm. di xëcc nii di sànni rek yow bokkoo tu n'es pas à la mode branché woo. Mm-hmm. ce serait bien li mu wax nii léegi ñu bàyyi ci xel bu baax a baax. tu n'as pas besoin de faire ça pour montrer que yow bokk nga que connecté nga xam nga yaa ngi à la mode et tout parce que après conséquences yi mu lay andil mënoo ko comprendre lu yàq sa poumon pour après nga war a dem faju ji aussi il faut ñuy bàyyi xel yooyu yëpp. sànq yaa ngi wax wàllub cancer euh, tey jii euh, sànq wax nga comme bu dee wàllub tuberculose euh, li ki nga xam ne nii am na ko am na signe clinique yoo xam ne mën nañ ko mooy sëkkat bu weesu 15 jours crachat bu xaw a vert et autres mais bu dee ci cancer bi tey jii nii tey kenn naka ngay mën a amee njort ne peut-être xëy na cancer nga am nga daw mën a dem ca ba muy teel. waaw cancer du poumon nag am na ay signes yu muy manifesto mais poumon dafa nekk organe boo xam ne bu laalul yenn cër yi du du metti donc le plus souvent moo tax ñi am cancer le plus souvent bu ñu ñëw hôpital rek parfois dañuy constater ne feebar bi law na du metti mais màndarga yu ñu koy gis nit koo xam ne day tux bu fekkee ne nit koo xam ne day tux tux lu yàgg commencé di saxat saxat bu chronique mm-hmm. wala yaram bi di jeex wala ngay tufli deret surtout ngay tufli deret koo xam ne day tuux wala mu am ay facteur de risque commencé di tufli ay deret ñooñu le plus souvent il faut ñu teel a consulter hôpital ñu defal leen rajo wala même scanneru dënn bi pour xool est-ce que amul tumeur bu nekk ci poumon bi ñi nga xam ne dañuy tux aussi jékki-jékki di jeex yaram bi di jeex wala nga am ay méttitu dënn yu bëri te nga xam ne yow yaa ngi tuux yaram bi di jeex ñooñu il faut ñu teel a consulter hôpital mm-hmm. mais cancer boo xam ne signes yi bëriwul signes yi bëriwul signes bu commencé rek le plus souvent day fekk ne feebar bi sori na moo tax lu ñuy woowee dépistage c'est très important même pays européen dañ koy def chaque année bu fekkee ne yow da ngay tux de façon chronique chaque année au moins nga def scanner ñu xool est que amul ay boules yu nekk ci poumon bi ay taches bu ñu commencé gis même tache bu ndaw rek dañuy def lépp pour coppati tache boobu xool est-ce que du cancer buy commencer parce que faj bi mu ngi gën a neex bu fekkee ne feebar bi dafa localisé wu ci poumon bi parce que foofu mun nañ ko opérer nit ki wér mais bu demee ba commencer law laal yeneen cër ci yaram bi faj bi amul leneen lu dul ay chimio wala yeneen molécules yoo xam ne yooyu ama amaguñu ko fii Sénégal hmm. faj bi day gën a métti et mortalité bi foofu lay gën a important donc ñi nga xam ne dañuy tux bu ñu commencé constater ne dañuy jeex wala ñuy saxat wala ñuy commencé di fat wala ñuy tufli ay deret nañu teel a consulter ñu def ay rajo wala scanner xool ci poumon bi est-ce que amul ay tache ay lu ñuy woowee tumeur bu fa nekk bu ñu gisee loolu ñu kii ko mais ñun lu ñu constater le plus souvent malade balaa ñuy ñëw hôpital fekke dañuy comme fekke seen tumeur bi dafa ngande ci poumon bi wala dem na sax ba law ci yeneen cër. le plus souvent ils viennent tardivement en conscience tamit du koppar gi nga xam ne mooy tax nga feju moom mooy sabab saa su nekk euh, nit yi di auto di jëm ci automédication dem pharmacie ut garab bu calmé ñu bu dikkaatee rek ñu demaat utaat beneen beneen garab ndax euh, feebar faju ci réew mi doon na lu jafe yi tamit loolu moom loolu moom ñu ñii di nekk si hôpital sax chaque fois ñu gis ko ñoo xam ne ils n'ont pas les amuñu moyen bi peut-être moyens yi ñoo tax sax du ñu sañ ñëw hôpital parce que mm. hôpital faj bi Sénégal dafa xaw a cher mm-hmm. bu fekkee ne yow yaay fayal sa bopp amoo prise en charge day métti boo ñëwee parce que cancer du moo defa naqari faj boo commencé balaa ñuy def diagnostic bi rek di nga fere lu bëri parce que dinañ la demander scanner demander la analyse demande lu ñuy woowee fibroscopie racole boo xam ne dañ koy dugal si poumon bi pour def ay biopsie mm-hmm. wala ñu def biopsie boo xam ne dañuy def écho dem coppati masse boobu noonu pour confirmer feebar bi parce que cancer kenn du ko faj tànk amuñu confirmation loolu loolu nag balaa maladie di egg si foofu day fekk seen xaalis presque jeex na te commencé guñu sax faj bi en tant que tel boobu ñuy dugal àdduna bu tukki la voilà raccord boobu rek donc c'est c'est c'est hyper difficile donc état bi il faut ñu jàpp si faju nit ñi ñu am soit ay prise en charge soit ñu am loo xam ne dinañ leen di mun a dimbali c'est vrai que dans les hôpitaux on a ce qu'on appelle des assistants sociaux yoo xam ne suñu yenn maladie bu ñu demee ba amatuñu moyen dañ leen di boole ak ñooñu ñuy dimbale mais des na état bi war na gën a def ay ay jéego ay jéego pour vraiment ñooñu nga xam ne amuñu moyen ñu mun leen di faj. am na beneen problème aussi ñu koy gis euh, peut-être ñoom Salma dinañ maree mooy jigéen ñi cuuraay loolu tey jii lan nga leen aussi. Fatou <laughs> eh, <laughs> cuuraay yi na doo pare ñu génération bi xamuñu ni ñuy cuuraayee. ñun pour ñun na saxaar rek. saxaar rek li ko Pape njaay coono na saxaar. xëy na genre yooyu aussi tamit c'est important boo toogee fii nga am loo ci gën a éclairer ci surtout suñu mbokk jigéen ñi. Mhm. effectivement c'est très important ñun souvent dañ koy wax suñu malade yi nga xam ne dañoo am allergie. ñu moytu cuuraay parce que cuuraay bi dañu constaté ñoom sax ñoo koy wax mhm. saa yu ma defee cuuraay rek damay saxat mhm. damay fat guddi bi surtout nga def cuuraay tëj yëpp mhm. yooyu moom baaxul def cuuraay saxaar boobu dem day dem ba oxygène bi day wàcc si biir néeg bi te nit ki mun na am asphyxie sax ba décédé si loolu moom baaxul cuuraay boobu ñi nga xam ne dañu am allergie wala ay asthme il faut ñu koy moytu ñu koy moytu wala ñu koy wàññi voilà parce que loolu day sënal day sonal seen poumon bi day réveiller wala mu aggraver seen maladie ñi nga xam ne aussi dañu am ay maladie cronique ci xol bi wala ci xëtër bi nañu moytu cuuraay bu bari boobu mais cuuraay bi daal surtout ñu am allergie ñooñu lay gën a sonal. bu weesoo cuuraay di tout le temps tout le temps tout le temps saxaar bu baaxul. maa di ñu fàttali tamit euh, fii nii ñu bari daanaka dañuy jël gaz di ko def seen biir néeg yi. te des fois ñu ngi noyyi ay fuites yoo xam ne day jóge ci ci gaz bi lu lu doy waar. loolu moom baaxul loolu baaxul parce que day indi lu ñuy woowee asphyxie. parce que gaz boobu day produire lu ñuy woowee monoxyde de carbon monoxyde de carbone boobu day compétir ak ak euh, oxygène bi ngay nooy oxygène bi nga soxla mais oxygène bi fu muy fixé wu ci hémoglobine bi pour dem ci yenn cër yi. monoxyde de carbone aussi foofu lay fixé wu donc day dem ba indi compétition hmm. bu demee ba indi compétition monoxyde de carbone bu ëppee si yaram bi dootu am oxygène donc ñooñu dañuy dee tranquillement si néeg bi te kenn du yëg donc mm. jël gaz tëj ko si kii di si kii baaxul. Mm. voilà baaxul il faut ak it di suul xal yi tamit ak it jël sa ànd. def xal bi suul ko nii. dañu naan bu toogaatee mën na génnewaat sa xar loolu aussi na ma bëri na si ñoo xam ne nii faatu nañ ci mm. xëy rek ñu leen yee. nekkete waaw ay moo tax c'est c'est important ñu ne kii lan moo ko lii. waaw kay pourtant démb mu ngi doon wax lan moo sabab te duñu gëstu bu baax lan moo war li ni mm. ndax day toogaat jépp càggante ay càggante yoo xam ne ay loraange rek la ñuy daal di jural euh, saa su nekk. tayal teg ci kaw gaz bi dama koy xel di def ah, dama koy defaale. <laughs> di koy def bëri nga si morom li tax ma laaj <laughs> dama koy kiiwaale. des fois ne dama dëgër bopp. waaw mënuma pour ma boyal day yàgg. day léegi pour mu gaaw moo tax ngay def yooyu noonu. waaw ak appartement yi promiscuité beeg. Mm-hmm. yi ñu bëri du ñu am fu ñuy nekk di boyal saxaar bi mm-hmm. donc du coup tamit système boobu la. Mm-hmm. mën a am aussi. boole kër yi nag gaz. taal bi promiscuité boobu bu fekkee ne souvent promiscuité boobu mooy waral dangay gis ay kër yoo xam ne ñu bëri dañuy am feebaru saxat parce que kenn ku ko amee xam ne ñii dañu bëri si endroit boo xam ne dafa kii mun na ko wàll ñeneen yëpp voilà promiscuité mun na c'est un facteur favorisant contamination yeen ñi feebar ci poumon bi surtout la tuberculose moo tax surtout fii en Afrique on a du mal pour éradiquer carrément la tuberculose. si dëkkaay yi ñuy dëkkee loolu loolu lay favoriser. loolu dina jafe de. waaw euh, euh, tout à l'heure vous avez parlé de masque. Euh, gis nañ ci période Covid bi am na ñu bëri ñu doon ñenn ñi di teg thèse boo xam ne nii mooy ne comme nii di def sport wala di génn di dox di takk masque c'est pas bon pour les poumons. te parfois it da ngay remarqué sax boo ko takkee di def di waaxu wala di def dara ça te gêne day gêner sa respiration loolu aussi itam ban explication. exactement parce que masque bi masque bi day tere yenn particules yi nga nooy ko. Mhm. maintenant dina gêner tuuti oxygénation mais oxygène bi day jaar normalement ci masque bi loolu mënul am jafe-jafe dégg nga par contre ñi nga xam ne dañu am déjà ay problèmes respiratoires ay poumons. parfois bu ñu takkee yenn masques yi mën na leen sonal mais loolu c'est pas un problème parce que oxygène bi dina jaar normalement mm-hmm. gaz carbonique bi aussi dina génn normalement te mm-hmm. masque boobu day filtrer yenn particules yi mm-hmm. comme bu bëree poussière poussière boobu du mun a jaar ci masque bi alors que oxygène bi dina jaar voilà mais am na ñoo xam ne duñ ko mun a supporter vraiment loolu dañ koy constater mais loolu warul tax nit ñi en tout cas poussière bi bu bëree sol masque boobu am na njëriñ bu baax parce que day firte leen yenn particules yi day firte aussi yenn microbe yi nga mun ko nga bañ ko mun a inal beneen système yi mair yi di joxe nag ment laato wala karité diw ci bakkan <laughs> waaw yooyu <laughs> yooyu ay remède traditionnel waaw yooyu yooyu yooyu aussi mën nañ mën na doon benn waaw ñun dañ koy gis suñu suñu malade yoo xam ne mhm. dañ ñëw nen la mantilaatum laa siy diw mhm. man personnellement bu fekkee ne am na la njëriñ duma la ko tere <laughs> voilà mais yooyu ay remèdes traditionnels ay remèdes traditionnels lañu ko voilà mais amul ay preuves sur le plan scientifique mm-hmm. voilà mm-hmm. parce que au Sénégal dañuy gis ne day fay am yenn pratique yoo xam ne maire yi dañ koy def yenn saay sax médecine day dem ba ci biir xam ne mm-hmm. ndekete lu baax la yenn saay ñu gis ne euh, doonul loo xamante ne bii lu kii la donc c'est important yenn mhm. détails yi yëpp euh, ñu ci ñu ci ñëw mhm. fàbbitu bu fekkee amoo question ma daal di wéyandi laata non euh, peut-être man bëggoon naa benn question rek par rapport ak cancer du poumon bu weesoo saxaar si ak mhm. pënd mi ak ñoom seen bëgg naa xam est que est-ce que am leneen lu koy joxe quoi waaw bëri na cancer nañ parce que dama tamit bëgg a leer na ay facteurs la cancer ñu ne lii rek moo koy joxe mais dañu ne ay facteurs favorisants lu koy gën a joxe nag cancer du poumon dans quatre-vingt-dix pour cent tabac la mhm. tux ay cannabis mhm. ay chicha wala tabac traditionnel pone mhm. wala ah, ah. cigarette bi yooyu yëpp ñi nga xam ne dañuy tux pendant longtemps le plus souvent ñooñu la ñuy gis muy def cancer ñi nga xam ne dañuy liggéey yenn liggéey c'est-à-dire ngay liggéey ci ay usines yoo xam ne dafa bëri ay gaz tout ça ñooñu aussi ñu siy liggéey lu bëri ay at yu bëri. Mm-hmm. di si exposé de façon chronique yooyu c' est des facteurs favorisants ñi nga xam ne dañuy travailler si mini yi mine yi mine yooyu nga xam ne souvent day am ay poussière poussière yu bëri. Mm-hmm. yooyu aussi c' est des facteurs favorisants. Mm-hmm. yenn mécaniciens yi parce que mécanique day am ay poussière ay particules yu fii nii bu nga xam ne ñoom duñu protéger wu dañuy inhaler ay particules yooyu yooyu bu demee ba yàgg ay at nga koy inhaler amul benn protection. yooyu tamit mun na dem ba joxe ay cancer du poumon hmm. mais nañu jàpp ne lu koy gën a joxe dans quatre-vingt pour cent ak quatre-vingt-dix pour cent tux la hmm. cancer boobu moom xam nañu ne tux la moo tax bu ñu gisee koo xam ne mosul tux sax def cancer dañuy xool exactement fan lan la doon liggéey fan la doon nekk tout ça ou bien lan la fan la jëlee exactement cancer bi mais tux moo koy gën di waral di di joxe tux boobu ci euh, koo xam ne nii tey ji euh, dafa wan na lor wala nga dëkk ak kuy tox comme sa jëkkër di tox yow nga wan na lor loolu aussi tamit mën na indi conséquences yi. waaw li nga li nga li nga. exactement mën na indi conséquence en pédiatrie yi sax xam nañ ko. Mhm. ñi nga xam ne ñoom jëkkër yoo xam ne ñu tux tout le temps si néeg bi wan na lor wala yow sax ngay tux. mun na am ay quelques jafe-jafe wala ay yenn feebar yu mun a favoriser si xale bi mhm. donc yooyu xam nañ ko am na ay feebar yoo xam ne comme ay asthme comme ay allergie bu fekkee ne da nga wonn lor di tux yooyu mun na am ay facteur favorisants yoo xam ne bu si boole ak leneen mun na joxe ay doom bi mun na juddu am ay asthme wala allergie. Mhm. ndax tux bi quoi. ndax mhm. tux bi waaw. et puis tu vois ñoo xam ne nii dañ naan la dama asthme ba pare di tux. waaw am na. ñu na ñi nga xam ne dañuy asthmatique. mais malgré ça dañuy tux loolu nag lu muy joxe au mooy ñaari feebar yoo xam ne dañu nuroo mooy asthme ak bronchite chronique. Hmm. parce que tux day joxe à long terme même bu dul cancer day joxe li ñuy woowee BPCO mooy bronchite chronique ñi nga xam ne dañu seqat tout le temps di yàbbi wala di fat seen fat di gën di aggravé wu au fur et à mesure donc boo xam ne danga am asthme di tux aussi. boo moytul tu vas te retrouver avec ñaari fa feebar mooy asthme bi ak bronchite chronique si tout en sachant que am nga risque am cancer du poumon parce que yaa ngi tux aussi. loolu moom asthmatique moom warul warul warul tux vraiment. te ñoo ci ëpp nag. waaw. ma ne ko te ñoo ci ëpp dañuy mm-hmm. conscient que ni euh, dañu am déjà benn feebar ba pare it euh, di ko wéyandi docteur dañu. ay ca da am mm-hmm. gis ne euh, ñi nga xamante ni bii léegi peut-être xëy na c'est lié à ce qu'on appelle atmosphère bi mais mooy tout temps kii léegi presque booy jël sang yi danga naan quatre-vingt-dix pour cent yëpp am nañ feebaru nooy yi ak ak yooyu noonu. loolu moom constaté constaté nañ ko du Sénégal yëpp mais si monde bi yëpp. Hmm. allergie respiratoire yi dafa gën di bëri. dafa gën di bëri. loolu nag lu ko waral mooy lu ñuy woowee lu ñuy waxtaanee léegi léegi mooy pollution atmosphérique. Mhm. parce que allergie dafa am lu ñuy woowee ay facteurs génétiques c'est-à-dire bu fekk ne yow da am asthme. am nga boo amee ay doom am nañu ay risques ñu am asthme même bii bu dul ñëpp ñëpp mais am na si ay quelques yoo xam ne mën nañu am asthme yooyu mooy la ñuy woowee facteur génétique yi na am na l'autre chose lu ñuy woowee facteur environnementaux facteur environnementaux mooy fi ngay dund environnement bi bu amee dafa am pollution yooyu mooy réveiller souvent ñoo ñu di def asthme parce que dañuy constater ne am na ñoo xam ne dañu am facteur allergique mais en fonction fu ñuy dund mun nañu bañ a am asthme bu fekkee ne fu ñuy dund dafa bëri pollution environnement bi qualité de l'air bi baaxul. ñooñu le plus souvent ça c'est lié à la pollution atmosphérique. Mm-hmm. c'est une des explications. Mm-hmm. boo xam ne mun na expliquer li nga xam ne. maladies allergiques yi dañu gën a bëri si xale yi. Mm-hmm. tey Mahady le temps de permettre à notre invité de souffler un peu dañuy dem.